sama kuddu jaam la raaj comme noonu la demee baal ma dem est dama da nga ne matadi soof nga ñàkk fe dama bëgg dee dang fa dem nga matadi ba bëgg dama la toppal fële ñi ne matadi ceeb baax sa <laughs> yow kay ko ko dendeel ma am fii boo amee fii rek macha allah dégg la wax fi mu toll nii kay connecté fële laa yam lan wallaay man nag damaa toog bu mu yegg daal sama xel yi yeddaat ma daal mën a xaar ma rek dagg sama xel mhm. ñëw jàkkaarloog yow ndeysaan ñëw door ganasi la fës ke ne toog nag. ba ma lay gëj a gis de yaakaar naa xam naa. ay 15 ans si njàngam alxuraan. waaw. sa bawale eh! eh! romb ma ni yow. eh eh romb ma nii. dëgër nga bopp de. jànq yow yaa nga ca biir yow yaay pay may xun nga nga leen a ba am ab taalibeem boo xam ne bii da leen nax leen. man de taalib ba sax na jànq gis naa ko moom mooy indi yegga ak jànq ci ah kon dem nga fa yow mooy dugal de ma fa dama koo dégg gis ko yow ma man man ba mu ne day eh, dimbali ma ah, yow demoo yow fa dem dëgg ñàkk fayda rek moo leen dal ma yox mu naan day sang néew léegi dama bëggoon yow it nga jàppale ma ci loolu la parce xam naa mën nga mm-hmm. bëggoon marché ak loolu noonu mën ñoo tàkkali ko quoi. Ah! pare nga yow. neex na. waa toogal. boobu neex na. ah baax na. sa sa kii moom sa taalibi la. sama taalibi la ma ko joxoon. Ah. nag kat sunu borom la waaye nag ku mën li muy def la. Ah. waaw xam nga nit ki moom fooy dem da ngay am taalibi. moo tudd